ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu ñit fi fekk ñëpp ñi seen ak ñi ni seenul di nuyu ñin fi romb yëpp ñuy daan seen doole di wax ni bu gisee liggéeykat bu ne ci lu mu new ak nim ci newee loolu day gën a conviction ni Sénégal war nañ ko gën Sénégal réew bu yàlla may ay ressources la pétrole ak gaz yegg si avant boobu fekk fi or fekk fi zircon fekk fi phosphate fekk fi lu bare bare bare mais li war mooy fexe ba loolu tegu ci ay loxo ñi nga xam ni seen bopp ñoru leen askan bi képp moo leen ñor te loolu bu ma leen ko waxee ngeen mën ko gëm ndaxte depuis vingt ans ma nekk ci opposition bi wan naa leen ni sama bopp ñoruma askan bi képp mooma na bu dul woon loolu dem naa ci nguur ga yàgg nag ban ma ca invité mais ma ni leen yàkkamti dem nguur amul njariñ li am njariñ mooy na ngay fekki est-ce que ñoo ngi ci njaru ñoo ngi ci njariñu askan bi wala déet boo gisee ni ñooñu nekk ñu ci njariñu askan wi defal ci wetu askan wi ndaxte askan wi rek moo wér loolu moo waral sunu présence politique moo waral sunu engagement politique boobu ba tey kon di jël engagement devant le peuple sénégalais devant les Dakarois que bu ñu yàlla joxee nguur ku ne foo mën a ne daa xam ni ci Sénégal nga bokku daa xam ni duñu bàyyi kenn mu jël li askan wi moom mu koy def ci poosam li ñëpp bokk dina dem ci li ñu ci askan bi yëpp gis nga dafa doy sëkk dafa doy sëkk ay politiciens matuñu sax junni jël askan wi en otage lu baax ñu def seen poche loolu dama ko nar a dakkal bu ma yàlla joxe nguur fulla ak fayda gi war xam ngeen ma ci xam-xam bi war bi ka waxtu jàng jotee jàngi naa ko fii ci réew mi ak ci bitim réew bi liggéey jotee fi nu war liggéeyee pour sa réew liggéey naa ko te maa ngi continuer di ci liggéey kon li des mooy fexe ba am équipe bi war ñun ñëpp ñu nekk ensemble ak ñi nekk ci coalition bi ak ñeneen ak ñeneen ñu téye Sénégal doxal ko defar ko di di di wax ak sama mbokku diaspora yi nga xam ni dama fay dem très souvent gis naa ni ñu bëgg réew mi lañu gis naa ni ñu am fula lañu gis naa ni ñu bëgg defar Sénégal lañu maa ngi leen di xamal ni bu yàlla mayee ndam y a de projets yi nga xam ne yegg si na ci ñun on compte les ci projet yooyu pour faciliter le retour parce que réew mi du ñeneen ñoo koy defar lu dul ñu dëkk ci réew mi et bu boobaa daaru mën a ñëw bokk ci liy defar réew mi Dakar boo dee xool ñu ci ëpp dëkkuñu fi ñu ci ëpp dëkkuñu fi dañ fi ñëw di daan si seen doole te mooy liñ fiy wut buñ ko fekkoon seen gox fekk seen buntu kon ñu defaree ko liggéeyee ko foofu seen buntu kër moo tax ma ni campagne bii mënoon naa ko tàmbalee Dakar wante dama ko tàmbalee ci biir réew mi pour xamal yàlla joxee ndam muy Dakar muy fépp fu département mën a bëgg nañu la bëgg fekk la ci sa bunt fekk la ci sa quartier fekk la ci sa département nga mën liggéey. xam nga Sénégal bu ñu toogee ba waxtu bi ñuy wax ay inondation ci biir Dakar di ko wax ci Grand loolu. day wane ni tappale bi bare na dama leen di jox exemple bu simple bi nga xam ni soxlawul doon ingénieur pour comprendre ko exemple bu simple mooy fële ji ville ville ville xam ni fa la bi nekk est-ce que bu tawee day inondé du inondé monté monté ay ingénieur ñoo defar foofu ba bu ndox mi wàccee lu mu bëri bëri buñ ci tegee ay minutes ndox mi dem yoonam mais boo leen xool loolu mooy tabax yi amoon ci période de colonisation mais dëkkuwaay yi am après colonisation foofu ngay gis muy ta est-ce que loolu day tekki ni période de colonisation liggéey yi ñoo gënoon baax et bi colonisation jeexee lu waay lu neex waay def pour pour pourtant lii wàcc ci ndox ci Grand Yoff mooy wàcc ci ndox fële plateau te plateau du taa kon li war mooy def liggéey bi war foofu nga def lu nu mel fii def ko lu nu mel fépp fu nit di dëkk bu ko defee ndox bu wàccee mën a dem yoonam te lii ma leen di wax nag dama ci lancer un appel à tous les ingénieurs à tous les techniciens j'en suis un je suis ingénieur polytechnicien li ma bëgg wax ci loolu mooy ce ne sont pas les politiques qui doivent définir notre façon de travailler bu ñu joxee budget ñu war ko appliquer ci ay infrastructure bu ñu jaar ci ginnaaw di ñu laaj leneen budget boobu yëpp na dem ci infrastructure yi pour que mu doon des infrastructures de qualité parce que ce n'est pas acceptable ce pas acceptable que ñuy defar vers des tout ce qui est préalable technique war ko jël en charge mais pour des questions de budget ñuy accepter di tâcher sunu compétence di tâcher sunu expertise di tâcher sunu ay travaux et loolu dama bëgg mu takk Sénégal bu mbir mi néewee concentré ko def ko ci lenn mu baax moo gën que nga koy tas di ko def ci lépp te dara du ci baax amul sens nañu construire étape par étape mais sûrement ba nga xam ni loo def doo ci dellu mais gis ngeen koñ yu bare buñ ko defee ba pare liggéey ba bu nawet ñëwee année ba ca topp dañ ciy dellu si parce que nawet bi da koy yàq te loolu lu mën a ñàkk la et vraiment bëgg naa nit ñi ci xel parce que parce que parce que li ma mooy li am États-Unis am France am ci yeneen réew yi mën na am biir senegal Sénégal yàlla may na leen ñu xarañ yàlla may na leen ñu bëgg liggéey yàlla may na leen ñu jàng et fële ci Europe entreprise yu gën mag ay sénégalais ñoo fa nekk di def liggéey bi kon état moo war am taxawaay bi war politique yi bàyyi yenn yi mën a accompagner entreprise yi ñu def des infrastructures de qualité le secteur informel le secteur informel le secteur informel jaar-jaar la war a doon pour jàll ci secteur formel organisé et buy créer beaucoup plus de ressources buy créer beaucoup plus de richesse et loolu ci projet yi mu am bu ñu yàlla joxee réew mi képp ku nekk secteur informel ñu identifier le ci benn domaine mu wér boo ñëwee accompagnement bi état war am dina ko am sa wet pour génne la le plus rapidement possible de l'informel pour amener le vers formel loolu il faut ñu am ci une compréhension très simple compréhension simple bi ñu am mooy bu nit ñi génnee informel dem ci lu formel ci lay état di ëppee doole ci lay état yi di gën a créer yeneen possibilité pour tous les citoyens et bu boobaa aussi ci lay gën a mën a accompagner nga xam ni ñoo des ci secteur informel xam nañu seen contribution ci PIB bi xam na nu seen contribution ci richesse su Sénégal xam nañu seen pas-pas xam nañu seen taxawaay et ñoo ngi leen di saluer di leen encourager ci jom bi fulla bi bëgg liggéey bi bëgg Sénégal bi nga xam ni gis na ko ci ku nekk ci yéen ak domaine boo mën a ne muy mécanicien bi di menuisier bi di këpp ki nga xam ni yaa ngi xëy nekk ci secteur informel bi gis nañu sa taxawaay ku lim juum seen lunette yi rafet na jaaree ma ci benn mu yóbbaale dama gis ni bi may lim yéen a ngi may piis pour ma lim lu ne di lu ne di nice na voilà. nice na de ah ah. dama ciy jël photo comme ça nga bare ay clients quoi. famille Kankaroumaane Sow nga bokk vraiment merci di leen wax ni kontaan nañu ci accueil bi kontaan nañu ci taxawaay bi. gis nañu yéene bi gis nañu yéene bi gis nañu pas-pas bi. bu ñu yàlla joxee réew mi yii ñu leen wax daan ko appliquer ngeen xàmme bulletin bi mooy bulletin bu jaune am weex bi xam nga danoo nekk ci wóori koor xam naa ña ngeen yi ndooyeen yi jegeen yi yéen may dégg xam ngeen ni ku toj nen ñaari couleur nga cay fekk muy jaune bi ak weex bi xam naa ni sama kal yooyu duna am difficulté pour xàmmee ku leen voilà léegi kon le 24 mars jour koor la na ñëpp xëy bu ñu xëdee ba pare dem ci bureau de vote yi baat ci bulletin bi bu baax a baax a baax a baax a baax bu ko defee cangoon sa ñu mën a ndogoo nen bi ñu mën a ndogoo nen bi bu leen mën naa toog fii ba suba di wax ndax cofeel bi may sentir mais xam ngeen ni dafa am étape yu bare yu nu war a def te day jël temps te xam naa ni aussi ndogu li ñuy tëgg et que nit ñi bëgg nañu dem préparer ndogu ji mais mënuma woon def ba fii ñëw romb te taxuwuma gërëm leen sant leen et à très bientôt